La la! sëriñ Mor Talla euh, fekk fi tey ki nga xam ni moo ko fi nekkal muy sëñ Abdou Rokhaya Fall di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér waaye fekk fi itam mboolem njabootu sëriñ Mor gi yëpp fekk fi sunu baay sëriñ Ndam Fall moom sëriñ Mor Talla Fall waaye tamit sëriñ Abdou Fall mi nga xam ni tey moom lañ toogal fii jotaay bi muy sëriñ Abdou Sakor Fall moom sëriñ Mor Talla tey sëriñ bi boole ñu ak mboolem njaboot gi ngir ñu war a waxtaan ak ñoom ci wàccaay wi nga xamante ne bii ci la ñu nekk nii te mooy ndog yi dog yi xam nga ne cosaan li mooy maam Cheikh Ibrahima moo amoon digal ci ku tedd ki Cheikhul Khadim eh, moo ko damay séntu gan te bëgg nga tertul ma te teral ma leen Cheikh Ibrahima Fall ne sëñ Bamba ay ndogu la may toggaloo te ko ma jox la ton lépp tànk ma fàggalu ci lu dootu yàqu te boo faatu mu dugal laaj na maa ngi wax ñu ci njaarim la xeewoon boobaak léegi nag mboolem ku ko képp ku ko fi mas a toogal ku nekk ndigal loola ngay wéyee weeru koor wu jot nga togg ay ndogu jox ko ki fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim la ko tàmbalee sëñ Mourou Moussa Fall mi fi njëkk wutu Cheikh Ibra ba ci serigne Abdou Sakkoor mu ko fu mujjee wut ba ci serigne modem Aminta ba tay ji serigne Cheikh jëmm waye mbolam buntu kër Cheikh ibrahim Fall yëpp nak képp ko xamanteni bi tay khalifa nga ci sa kër wayjur bu baax te mam Cheikh ibrahim Fall meññi ko yaangi ngi digal lolé nga xamné ku tedd ki serigne Touba Cheikhul khatim moko santone mam Cheikh ibrahim Fall waye fi ci biir kër serigne Mortala Fall ñu fekk fi mbolam njabot gi ñi nga xamanteni bi seen wayjur baax ya ño fi nekkon wuutu fi sering Mortala Fall mu njabotu serigne Abdou Aziz Fall serigne Bada ku mel na Serigne Cheikh Mor Fall ak mboolem njaboot gi yëpp xam naa Serigne Seydina mi ngi war a jël kàddu gi danañu présenté ñi fi teew ñëpp waaye waa kër Serigne Bassirou Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall ku mel ne Serigne Bada Fall mu Serigne Talla Yacine ñoom it ràññee nañ leen lool ci jotaay bi at mu jot ñu di ko taxawoo nii ci wetu Serigne bi ngir ndigal loolu waaye waa kër Serigne Khadim Fall itam ku mel ne Serigne Cheikh Khadim ak mboolem njaboot gi yëpp tamit eh, ne ci wetu Serigne du Fall roqee ngir ndigal lu tedd li nga xam ne seen wajur bu baax ba Serigne Momar taala Fall moom itam bi mu fi wutoo maam Cheikh Ibrahima Fall Eh, diggante 1950 ba 1954 ñetti at yu mu fa wutu Cheikh Ibra Fall daal ndigal loolu la doon wéyee eh, ba tey eh, mboolem ku fi toogal maam Cheikh Ibrahima Fall waaye mboolem njaboot gi nga xam ni itam dañoo gàddaayoon fekk maam Cheikh Ibrahima Fall mën ko ci mel ne waa kër maam Ibrahima Ngoone Ndiaye waaye tamit njaboot gi jëpp ñu ngi fi xam naa ku mel ne Serigne Sidna Fall danañu présenté jotaay bi mu mel ne daal mboolem ku fu toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall ba ci njabootuk Serigne Bassirou Fall muy soxna Khady Mbodj di njabootu sëñ Mortala Fall ñepp rek gis nañ leen at mu jot ni ñi taxawoo eh, sëriñ Abdou Rokhaya eh, ci ndigal li nga xamanteni bi wajurom moko fi bayyi won te tay muy wéy di wéye ndigal lolu ñu fas nak andando yobbu liggey bi ci ki nga xamne moy mooy Serigne Mountakha Mbacké tey wutu fu Serigne Touba Cheikhul Khadim fi ci residence Cheikhul Khadim fi jakkalu jumaay Touba tammi man nañu at bu njëkk mi nga xamne tay lañ ko jébal Serigne muntaha depuis bi wéru ko lu tambalé ba tay ren daw ñu jox ko Cheikh Sidi Mokhtar ren ñu jébal ko Serigne Mountakha tay ñaan yalla mu yàgg ñu yàgg ko ko jébal mu yàgg ko nangu xamna dañuy jox kàddu gi Serigne bi mu léral ñu naka lañu ñuy liggé bi fi ci kër Serigne Mor Talla Fall. rahim alhamdulilah rabbil alamin ñi ngi rafetlu jotaay bi bu baax di jital ci nuyo bi suñu kilifa serigne Abdou Rokhaya di khalifa Cheikh Mor di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi lol tànn ak wér. ci teg seen sëñ Ndaam Abdourahmane Fall ak euh, suñu bàyyi sëñ Abdou Sakor leen ñaanal suñu borom liggéeyu sëñ Mortale bii ñu taxaw yal suñu borom yàggal ko te bépp naal buñ ci am yal suñu borom daf ñu àggale ko te ànd koog mboolem taalibe yi euh, ni ko waxee rek euh, fii njabootug sëñ Mortale gépp ngi fi doomu waa kër sëñ Abdou Aziz Fall ñu ngi fi ci njiitalu sëriñ Bada sëñ Cheikh Mor Fall mi ngi fi. Euh, waa kër sëñ Talla sëñ ñi ngi fi ci nitaluñu sëñ Aliou Fall sëñ Bada Fall ak mboolem ay rakam naka noonu tamit ñi àndoon ak euh, sëñ Mor Talla daan ko liggéeyal di mbokkam waa kër sëñ Baara Ndiaye ñëpp a ngi fi sëñ Baara mi ngi fi ak sëñ Mbacke ak sëñ Maam Ndiaye di mag yi kër gi di ñu taxawoon ak sëñ Mor Talla seen i waajur àndoon ak sëñ Mor Talla noonu ñoon tamit boobu ba léegi ci liggéey boobu ci la ñu nekk tànk yooyu mosuñ ko wàcc. sëñ làmp moom tamit mu ngi fi di xalifa sëñ Basirou Fall moom sëñ Mortala sëriñ Xaadim mi ngi fi di doom ci sëriñ Abdoul Aziz ak euh, sëriñ Abdou Salam mboolem njaboot gi daal kenn desut ñu ñëw fii di ànd ak liggéey bi ni nga ko waxee rek ni ñu ko daan defee euh, mu ndigalu Cheikh Ibra loo xam ndigalu sëriñ Touba loo xam ne Cheikh Ibra la ko digaloon ginnaaw Cheikh Ibra tamit njabootam gépp nekkoon ci tànk yooyu ba mu agsi yàlla dogal mu agsi ci ay sëtam sëti Cheikh Ibra booba ak léegi tamit na ko Cheikh Ibra tàmbali woon ba léegi dara wàññikuwu ci xanaa lépp yokk liggéey boobu nag moo ñu fi dajale fii tey ñu fas yéene cee waxtaan kon bu fekkee am na ci lu ñuy laaj lu ci war a dolli rek bu ko defee ñu wax ko ci incha allah. Euh, xam naa sëñ bi xanaa nga dolli ñu ci rek gannaaw yàlla dogal sëñ Mortala Fall wut fi maam Cheikh Ibrahima Fall doon ko taxawoo fii ba jógee fii njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi tam di koy wéy noonu. gannaaw si bi tam mu tegu ci loxol euh, Serigne euh, Abdou Assis Fall ba ñëw tey ci loxol Serigne Abdou Fall Roqee euh, naka ndax dañuy wax ne ak coppit kay am na ci wala ba tey na nga xam ni noonu la ko sëñ Mortala daan liggéeyee noonu dañ koy liggéeyee ba tey. jërëjëf sëñ Mamour liggéey bi ni ko sëñ Mortala an tàmbale woon di ko ànd ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima gi ci 1954 50 ba 54 nekkoon fii. Cheikh la taxawee ko tamatoon ko sëkk ginnaaw bi mu demee bàyyi na fi doomam muy Serigne Sidi sëriñ Sidi tamit ànd ko njaboot gi taxawu ko ci taxawin bu rafet ci ne ko sëñ Mortalla daan dundale euh, sëñ mortal nag mi ngi nekkoon xuru Mbàkke boobu xuru Mbàkke lañ doon toggee ndog yi daan ko ci saxaar di ko andi Touba ginnaaw bi sëñ Mortalla dëkk fii ci Touba euh, paaleen fii ci lañ ko tàmbalee yanu di ko yóbbul sëriñ tubaa Euh, ginnaaw Serigne Sidi tamit sëñ Abdou Aziz Fall mi nga xam ne moo wuutu Serigne Sidi wax dëgg yàlla def na ci ay yokkute yu bari yoo xam ne euh, kawe na njort ndax euh, sëñ Mortala sëñ Abdou Aziz fu mu fekkoon liggéeyu sëñ Mortala lépp lu sëñ Mortala tàmbali woon suñu borom taw feexal na ko sëñ Abdou Aziz mottali ko te ànd kook mbooleem ñi àndoon ak Cheikh sëñ Mortala ci këram bi li sëñ Abdou Aziz tàmbali woon tamit. ba suñu borom dogal mu yam fa fu ci wara yam ginaaw bi rakam ju bax ji ñewé sëñ Abdou Roqee lepp lu sëñ Mor tambali won Abdou Aziz yok ko rek sëñ Abdou Roqee tamit bi mu ñëwee suñu borom defal nako dimbal ci katuno Cheikh Ibra momit fa ay magam yabon muy sëñ Abdou Aziz ak sëñ Sidi yok na ci lu kawé njot ndax ku nek gis na ne boba amna ñun doon toggé ndog yi ci na jamono tollu won ndax boba amna façon jamono jamono façon toggé duñ ko don toggé da ko yett serigne touba te jamono fi mu tollu tay ni dafa mengo ak liñu yobul serigne touba ndax dañuy wax na jamono ju nek rek da fay am lu mu tollal lolou nak serigne borom dimbulé ci ñun ci njabootu cheikh ibrahim ba ci katunu cheikh ibrahim fepp fu jamono tollal la jamono laaj ak la jamono soxla ta nga xamne boko yobbo muy amal njariñ nit na suñu borom def na lolou mom la serigne abdou di liggéey fi ci keur seigne sëñ mortale gi diko yott seigne muntaha fe ci keur gu maggi ko ñaanal noonu ko wax seigne muntaha suñ borom yagal ko fi lool te weral ko ci barke bi Cheikh ibrahim euh di wax na ndog rek loolu rek mooy cosaan li yakarna naa cosaanul ndog li mom ñu bari wax nañ ko ay yoon yoon xam nañ li ko juk euh seigne sëñ mortale tamit bi keur Cheikh ibrahim tabbe ci mom euh mu nekkon ci keparu ku tedd ge yaroo fa taxoon na mom li lim jëlee ke seigne Touba ak lim fekk kër Cheikh Ibra ñaar yëpp la boole woon te benn musu cee manqué kon nak njabootu seigne mortal timi ci li seigne mortal nekkon rek ci lañ nekk euh, di doon ay talib rek yu fasiyene yéene Cheikh Ibra ndax wax wax nañ ne seigne mortal ko ku ki mosoon na ko wax ci benn bis ne ko mortal Talla dama bëgg nga wax ma lo mu wax lo bëgg na bëgg ma defal seigne mortal na seigne bi wax ko ñatt yoon seigne mortal waxul. sëriñ bi ne ko tànnal Momar Talla tànnal nañ la ak taalibi gu ñu nangu kon nag taalibi googu sëñ Mor Talla tànnaloon boppam rek ñun njabootu sëñ Mor Talla gi yëpp ci loolu rek lañ fas yéene tënku ànd kook suñu kilifa sëñ Abdou Rokhaya mu ànd kook mbooleem rakkam ñu topp seen ginnaaw di ñaan yàlla mu yàggal ko fi loolu te wéral ko barke maam Cheikh Ibrahima. Mm-hmm. ok euh, jërëjëf euh, sëriñ Sidina Fall ci kàddu yi euh, am na solo dafay mel ne sax toll nañ ci fi nga xam ni fi lañu war a yëkkati jotaay bi. ndax mel na ni eh, gis dégg nañ njaboot gi di yëngu ne mel na ni liggéey bi yegg na xanaa di la jaajëfal baax a baax tey ñaan yàlla ñu def ko ay ati at barke maam Cheikh Ibrahima ñuy yokk ci tuuti rek loo xam ne fàttuwuñ ko sax waaye xel mooy fàttu mooy bi waa kër sëñ Mor Tall sëñ Aliou Fall ñoo ci ànd ci njiitul eh, sëñ Cheikh Fall Mbawar moom ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko moom it di jàmbaar yi Cheikh Ibrahima joo xam ne fa sëñ Aliou Fall tegoon tànkam foofu la ko teg ànd ko mboolem njaboot gi moom it ñu ngi koy ñaanal bu baax di ko ñaanal ci barkeb Cheikh bi liggéey bi yàlla na àgg ci jàmm. fii ba tey ci kër sëñ euh, Mortala Fall euh, fekk fi xalifa am sëñ Abdou Fall Roqee euh, ci ndog yu tedd yi nga xamante ni bii moom lay togg di ko yóbbul njab sëriñ Muntaxa moom Cheikh Mouhamadou Bachir comme ni ko defee ci mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp si daaw leeraloon nga ñu ci wàccaayu ndog yi lenn ci cosaan li ñu bëggaat tamit ren nga indilaatal leeral rek ci naka lañ koy taxawoo liggéey bi fii ci kër sëñ Mortala Fall. waaw bismillaahi rahmaani rahiim. ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yal na suñ borom nangu ñaan liñ tàmbali yal nañ ko eggale ci doole dooley Serigne Touba ak Cheikh Ibra maanaam li ñu waxoon daaw rek moom la ñuy waxaat ren waxaat waxaat la rekk ndax baax du weesu baax li ñuy jëf moom waxtu wu ne day gën di yokk waaw positif bi day gën di yokk am am bi day gën di yokk jëf ji day gën di yokk yal na ko yàlla barkeel ci doole Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima waaw. jërëjëf euh, naka la liggéey bi demee fii ak taalibe yi. liggéey bi ak taalibe kenn ku nekk sa pas-pas nag waaw kenn ku nekk sa jëf-jëf kenn ku nekk sa man-man waaye nag yéene ji moom ñëpp a ko bokk kenn ku ne boo sañoon lépp lépp yaa koy def ndax am nañu yéene ji waaw te ki ñu ki nga xam ne mooy jiit ñu jiital ko itam. ah li ma leen di wax la rek lantinoor la tëyewul diw lépp lu ñu ko jox rek dina ko ci def lu mu am dina ko ci def waaw tëyewul dara ngir boppam tëyewul dara ngir ëllëg Cheikh Ibra lay liggéeyal tax na ñi topp ci moom di liggéeyal Cheikh Ibra ñëpp doyloo nañ ko ba luñ am rek attan nañ ko ko jox ngir jëmmi Cheikh Ibra waaw muy taalibe yi muy doom yi muy soxna yi muy soppe yi muy àddina sépp rek ñi sori ak ñi jege it ñépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen soññ ci liggéey bi ndax amuñu lu dul liggéey bi waaw. wax ne comme ni ñu koy taxawoo saa su ne rek mooy bu ñu xëyee suba teel lañ ciy nekk ba waxtu wi ñu waajal ko ngir yóbbul ko ki fi nekkal Serigne Touba. waaw te ni mu gën a yelle ni mu ëppee sutura ni mu gën a baaxee ak ni mu gën a sell kenn ku ne am nga waar woo xam ne rek boo xëyee ci waar woowu ci ngay xëy ba bañuy wàcc waaw kenn ku ne am nga sa liggéey bopp ci kër gi. bo xamni bo xey rek xam nga ni li nga fiy def bo xey ci ngay xey ba ban ni koy dajale lepp soti ñu yóbbu ko ci kër ku baax jere jere jërëjëf wa ñu ngi sant ñepp nak di leen sant di leen ah di gërëm sëñ Ali Diouf te di ko ñaanal mu yokkoo ci barke Serigne Touba ak mam Cheikh Ibrahima waaw yalla na yàlla barkeel ñu ngi sant bu baax talibé yeeg soppé yeeg ñi ñëw ak ñi ñëwul daal ñepp ak ñi ñiy yónnee ñëpp ñu ngi leen di sant jëf. Silver. about it. to her.